encore benen digal bu ti ci Seydina Ousmane Sonko mo sell mi leader Pastef bi nag daal dinay woote à une marche pacifique à la population sénégalaise nee na nak nag wul ci ab coup d'état wala guerre civile li nga xamné mo ngi wo population sénégalaise bi dafa nek né dañ ci bëgg wané walé seen ab désaccord ci yenn mbir yi nga xamné mo ngi am ci réew mi nee na bis bu ñuy réussir rassembler nak lu tollu ci cinq cent mille personnes dinañ parviendra à montrer le président Macky Sall que rien ne va dans ce pays dara doxul yii lee cadre nak mo ngi ko yëkëti woon ci conférence de presse bañu doon amal ñoom wa coalition yewi Askan Wi et en plus de ce rassemblement nga xamné ñom leader yi daal dinañu kay prévoir fi ci Dakar Ousmane Sonko daal dinay annoncer walu aussi des marches dans tous les départements du pays yi les marches nak avec ou sans autorisation lañu ko nara amal fi ci réew mi nee na ndigal bi nak ca mom la wacce bu ñu mënee nañu ñëw daal di koy arrêter té ko loxo le président Macky Sall mënul de le tour du pays à des fins politiques au point de s'interroger sur la défaite à Sédhiou di a interdire de faire opposition à tout mouvement voilà le lendemain du 15 mars donc avons organisé des marches dans les 46 départements du pays pour dénoncer les injustices les arrestations arbitraires et la justice qui est manipulée par le chef de l'État Nous nit avec ou sans autorisation ndax préfet ak sous-préfet yeb yëpp ay subalterne lañu nee mom nak le président Macky Sall lay waxal arrivera ce qui arrivera mais ce sera à la guerre comme à la guerre numu ko beugé rek lay démé su woté jamm ñu fekk ci ko ci fekkee aussi da woté ayba di lañ ko ci fekk ci ba mu jeex yi lé kaddu mu don yëkkati nak mom leader Pastef bi nee mo ngi ci woo tous les Sénégalais épris de justice la population doit faire face et montrer à la face du monde qu'elle a une souveraineté aussi ca y les eu les dinay préciser waale nag à un coup d'état encore moins à une guerre civile mais c'est la constitution qui autorise à manifester son désaccord via un rassemblement populaire